Euh, donc ñu bàyyi leen ki nga xam ne rek moom moo di Serigne Gundu donc allo incha allah rabi. Serigne Gundu indil Serigne Gundu seetaan indil Gundu seeti dato seeti dato indil Serigne Gundu mi tasil jamono mi tas Sénégal lay lay la xani ngaay que liberté siis borom bés bu réy bi dinaa la wayal dañu leen a wax wax. ne ko sëñ bi kay reetaan ñu sëñ bi kay reetaan ma sëñ Ndu kay reetaan ma ee moo sëñ bi kay reetaan ma réema bu ñu kaw réema daa bala ne ma wu ah eh, eh, eh, xanaa xam nga sëñ leen man lu tax non leen loolu waay màggal leen loolu sa ñund Diop Anas mi yaa ko yar ci sa kër gi jàngal ko ndax sax am na ci lu mu nekkoon doon yëngatu waaye loolu am xamee na doxut la ñëw ci yow ma bëgg nag ñu jox ko mu yëngalal la ndax yow xamante ngeen ni ñaar bu baax a baax a baax ak firikat bi kon nag Diop Anas nit ñaa ngi nii yaa ngi nii sëñ baa ngi nii lu mu neex rek doy doyuñu ah sëñ saw loolu boo ko waxee dama ciy sawar lool ndax sëñ gund nii day saa wasi la te mu am fu bari fu nu jaar foo xante nii loo ma wax ci moom rek mën naa la wax ci moom pilis waaw ba tax na duñ def lu dul barkeelu ci moom jàng yi fu ma ko masaane defe ñun ñëppay ñëw ndax lii lépp boo gisee ay taalibeem lan ndax boo xoolee fukki jabar ñaar ndax kenn ku ci ne ci koo xamante nii moom tuwaar kàlla nuuma la waaye xam ni mu mel a tax sëñ bi def ko noonu ba tax na nu tàmbali jàng yi bismillah sëñ gundu way naa la jin naa la sëñ gundu way naa la leen ko sëñ Gunda way naa la sëñ Gunda way leen ko ni way naa ko sëñ Gunda way naa ko Sëriñ Ngondo way naa la way naa la waaw way naa ko way leen ko way naa ko Sëriñ Ngondo way sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer sëriñ gu ñu layaa séeréer loo xanaa xoojatoo banane xanaa xooja bay kode xode gàkko kada mala xanaa séeréer la yaa séeréer eh la yaa séeréer Saliou Gueye la yaa séeréer jërë ngeen jëf jàppal jàppal jàppal jàppal jàppal jàppal jàppal jàppal jàppal jàppal jàppal. waaw waaw noonu la. jóge rek. baal nañ la. may leen ko mu jàll waaw kay. sedd na lool ah. ma ñëw xool bi dafa sedd kuy ndax Serigne Goundou mii daa lu ne. xool bee sedd. xool bee sedd dafa daanu waaye def leen ni ñu màgg sëñ Goundou waay waaye loxo ca ñu màgg sëñ Goundou waay. waaw kay. firikat bi lim firi neex na lool. waaye nag bu loolu jeexee dañuy daal jox suñ gun sañ gund nag mu daal di yeggali liggéey bi bisimilah sañ gund raw raw raw raw ras sañ gund ne raw raw ras xuy xuy muy drrr sañ gund ne xuy suy mur drrr lépp xeet ak mandite la nee na lépp xeetuk mandite la laa tastixaa minal laa tastixaa minal xarandang xarandang bintuhaa bintuhaa fil durri fil durri minal caraa minal caraa nee na moom moo aay maa bari xam-xam waaye sëñ Ngundu ne moom moo bari xam-xam boo jambee Dakar ba mu yàbbi xam ngeen lu muy saf nee boo jambee daqaar xam ngeen la muy saf Dakar Dakar mango bu saxee xam ngeen lu sax nee na boo mango bu saxee xam ngeen lu saf mango mango lay saf dëgg la waay maa aay waay sëñ Ngundu yow yaa aay waay jommal naa sëriñ si jaaxal leen ah loolu boo ko waxee nit ñi dinañ ko gëm jommal na sëriñ si jaaxal leen moo tax ma ne nga dem ca téereb ndambar xiij ba ca ñaareelu paas ba xaajab kaw ba nee nga dem ca téereb ndambar xiij ba ñaareel pa euh, téereb ndambar xiij ba ak lan ñaareelu paas ba xaajab xaw ba ba ca xaajab xaw ba dañ caa jël baatab si pa baatub si moo tax ma ne sëriñ si maay seen siiku ndiig nee na sëriñ si moom moo tax ma ne Seekundik Seekundik Ngundu jàmmal la Seekundik Seekundik Ngundu jàmmal la Seekundik Seekundik Ngundu jàmmal la Seekundik dina toq de ah article quatre eh, ca Sénégal kuy wax booy boo wax loo xam booy wax waxal loo xam booy déglu déglu loo xam article quatre vingt si na de yërëma yële kaay bi la ñuy tuddee lu nga xamante ne bi moom la ñu naan girawal lii waaye pèlerinage la dem kooka la maître Amadou Sall ma ngay pèlerinage demut Makka demut Médine de ma nga Rebeuss loolu mooy laa ni moom la yële kaay bi de lii mel ni mbalee yëral ma yële kaay waaye bi lay wax laas làkkar ci ku na cogère usitel ah boo saagul lu danañ loo loo daal wane li nga xamante ni bii kat mooy seen doole le 23 ku ca nekk nga koy pare ngir fas yéene jaay doole yëleel yële kaay ñex bu naangoog Aliou Cissé ngem bu na daal de yëkkati ay kaddu wax staffam ñoom nar a àndal ah Lamine Diatta bokk am fulla ak kan Tony Silva ak góol ba loolu mooy kari Aliou Cissé kii caaxaan yëleel timis namas na ko songoog de <laughs> waaye président Macky Sall na dana ku yëngal réew mi mu yëngal la moom Macky Sall nee ku yëngal réew mi mu yëngal la kon gars bu yaboo ngeen tey te moytoo yëngal réew mi te xam ne ku fi mu yëngal la di daje ëllëg ci yëngal yi ba bàyyi ba